waaw fekk naa hôpital baax ah. hôpital boo xam ne bari woon na ay spécialistes am na de qualité mais dafa desoon organisation yooyu quoi ci lañ nekkoon ci lañ nekk nag moom lañ engagé di liggéey organiser ko bu mu nu hôpital bu yomb man sama objectif mooy zéro sable ici bu mu fi gisee suuf dañuy gazonné lépp ak pavé lépp bu mu dàq principal ndax principal mooy sama référence dañu bëgg hôpital bu dàq hôpital principal waaw objectif mooy loolu et pour ça yi ñu reproché woon mooy accueil orientation dem naa wuti juróom benn juróom-ñaari nit ñoo xam ne accueil orientation lañ fi nekke yokk ñett yi fi nekkoon ubbi nañu service de facturation bes takk mu ngi noonu ci bunt ba léegi loolu war ne nit ñi dootuñu toog di rang léegi salle bu climatisé teg fa ay chaises yu bien loolu amélioration la ci accueil la bokk kenn ki ñu ngi ko yóbbu maternité léegi kenn ki ñu yóbbu ko chirurgie kenn ki ñu ngi ko yóbbu laboratoire ak kenn kuy taxaw di accueil ci bunt ba ñaar ñu taxaw accueil ci bunt di orienté nit ñi leen yóbbu loolu ci mbëbëtu

waaw fi ñu bëgg hôpital bi egsi fa mooy hôpital bu raw comme la ko waxee léegi hôpital bu raw hôpital principal ci ci ci ci ci ci ci ci environnement extérieur et intérieur même ci biti biti dégagé nañ oto yeeg cantine yëpp ñu ngi koy pavé commencé nañ samp garab yi gis nga après lampadaire yi la ñuy samp mu rafet vraiment rafet parce que population bu gisee loolu dañuy kontaan loolu moo manqué woon peinturaat hôpital bi yëpp teg enseigne lumineuse foo tool di ko seen Youssou hôpital Youssou Mbargane loolu daal mooy suñu mbëbët ci loolu lañ nekk bu ñu paree nag service yëpp ñu ngi koy réhabilité waaye gis ngeen ni hôpital yëpp chantier la ne maternité chirurgie bloc opératoire euh, SAU yooyu yëpp bloc administratif yëpp ñu koy réhabilité changer buntu yi defaraat toilette yi defar salle d' hospitalisation maternité ñëpp kontaan population yi kontaan loolu daal ci lañ ne te incha allah dina sotti. autorité état moom foo commencé foofu ñu ngi def li ñu war def vraiment Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi def effort yu bëri li mu def fii moom vraiment kenn mosu ko fi def ndax jël na xaalis bëri def ko pour ñu liggéey liggéey bii nga gis ñu koy liggéey yëpp ndax xaalis liggéey dafa laaj xaalis tuuti Abdoulaye Diouf Sarr ministre Abdoulaye moo woo jàppale dooleel hôpital ndax bëgg mu bëgg Tëngéej bëgg gi mu bëgg population yi moom loolu moo war a lii ñi may lancé appel kay mooy ñi ci des war a jàppale ñu ci liggéey boobu mooy autorité Tëngéej yi ak société yu mag yi fi nekk ñëw jàpp ci liggéey bi tuuti parce que liggéey bi c'est colossal te lu ñu ci jublu rek mooy satisfaire population yépp gis seen bopp ci liggéey bi président demandé ñu jublu ci liggéey bon loolu nag entreprise yu mel ni yi du ma tudd benn entreprise Eiffage daal ñu koy sant di ko gërëm ndax ñëw na mooy eggale SAE bu mag bi na ca fond ba donc li ci des nag ñu leen ñaan ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi rek pour liggéey bi gën a dox waaye Abdoulaye Diouf Sarr ministre Abdoulaye Diouf Sarr moom gàcce ngaalaama population yi dellu siwaat ñu gisaat am nañ confiance gis nañ li fi ne ñun ñu ngi recevoir des félicitations de partout te loolu yëpp ministre Abdoulaye Diouf Sarr moo ko waral ndax moom moo ñu dooleel moo ñu wóolu moo ñu jox li ñu liggéeyee ñu koy sant di ko gërëm di ñaan population yi nag ñu yokk confiance boobu te ñun ñu def tout ba duñu leen décevoir te ñu ngi ci yoon boobu